ci loru jaale la ñu dem ci imam Kanté imam Kanté Ousin Barigo nee na c'est un surnom paraît Barigo ku mu neex nga bërën ko sol solol ko couleur li mooy destin wu Barigo alors imam l'a dit mais c'est en fait euh, sur sa page Facebook euh, site yu bëri reprendre ko mais c'est pour euh, parler du phénomène mm-hmm. sol yére jigéen yi ñu commencé banaliser ci yenn góor ñi je pense que c'était plus dans ce sens-là qu'il euh, parlait qu'autre chose mu interpellé ñu ñu ñu décider tamit quand même euh, taxaw ci tuuti Charles. on a encore rien vu. gisaguñu dara. nan dem rek. kon lii yëpp stratégie la ni mu ko xalaatee. pour qu'on accepte ces ah, gens-là yow gisoo xale yi léegi li ñuy sol sax bon. bon Charles Charles a démissionné apparemment Pape Djibril. oh mais il faut que li Kéba Mbaye doon wax rek feu Kéba Mbaye mu ne pour qui se donne la peine d'observer la société en ce moment c'est-à-dire que mënuñuy def yoo xamante ni c'est de l'extravagance on franchit yenn seuil yi nga xamante ni c'était à la limite intolérable te léegi ñu commencé di ko tolérer mm-hmm. c'est-à-dire que waxuma ne tolérance warul am tolérance dafa war a am acceptation sax de l'autre dafa war a am ci li nga xamante ni moom la nekk mais li nga xamante ni dafay fouetter sunu sunu sunu yenn valeurs yi ak benn Euh, violence bi loolu aussi war nañ ko war nañ ko parer quel est l'intérêt pour aujourd'hui pour un homme hmm. un chanteur homme hmm. muy sol yëre jigéen c'est quoi le projet Pierre Pierre bu dee affaire bi jege na dimbali ñu defe naa tu peux nous épargner moi j'ai bien alors Bouba en fait man man man man lu may wax mooy euh, Sénégal il faut ñuy jàngat nit ñi hmm. il faut ñuy poser wu question pourquoi diw di def dara Hmm. il faut ñuy convoquer jaar-jaaram parce que dafa am nit ñu mat ak nit ñu matul hmm. c'est très très important am na nit ñoo xam ne soo demoon peut-être ci démb di nga trouver explication yu bëri ki seen comportement wu tey il faut que ñuy évaluer nit ñi ci fi ñu toll est-ce que nit bi nekk na ci fi mu war a nekk bay defee nenn ni pour man je refuse man may convoquer benn débat boo xam ne peut-être ki ma jàkkaar lool war naa mën a am beneen jàngat ci moom est-ce que nit bu mat dëggantaan à cent pour cent dina am benn comportement il faut ñu koy convoquer parce que sinon damay ragal ni suñu rombee benn benn kenn ku euh, xel mi neexul mu def yaramu neen taatu neen sax ñu juger ko moi je pense que il y des gens yoo xam ne. dañ leen war a dañ leen war a dimbali dimbali bi moom mooy. njëkk a étudier est-ce que nit ki mat na bu ñuy étudier nit yi je pense que am na yu bëri yoo xam ne dañ koy tegee ne ne parce que à force d'en parler sax ah dafay remettre en question sax ñun comment on regarde là mais je pense que ce qui se passe avec avec ce problème là n'a rien de normal je pense que c'est dans la tête waaw waaw bu dafa wax lu am solo mooy convoquer la psychiatrie mm-hmm. am na fi nga xamante ne nit ñi buñ fa tollee dañ leen war a jàpp yóbbu leen hôpital faj leen parce que ils sont malades moi je pense que loolu la mais booy xool globalement suñu société tey da ngay taxaw sa rakk bu góor sol yére sa rakk bu jigéen sol yére nga jaawale sa rakk bu góor ak sa rakk bu jigéen dañuy am lipo lèvre dañuy ñun suñu temps booy ñeme woo jël mantolatu def ko sa tuñ mais aujourd'hui c'est ça dañuy sax am nañ des produits roccituñ booy saabu carotte la ñuy sangoo pour régler la question de la perception tout ça c'est c'est vraiment c'est-à-dire parce que l'accent est mis sur le beau le narciss c'est-à-dire le narcissisme loolu yëpp dafa ànd ak jamono sama téléphone bu ma ko yoree nii laay def ah insta fashion sama tuñ wëndeelu dafay affaire et parce que on ne regarde pas l'autre on à dire tout est axé sur le miroir le miroir quoi man sama bopp man reflet. le moi mon reflet li ma doon maa fay toj donc moo ñu indi fii directeur comme da nga ci tombé tamit ce fait de société noo ko jàngatee li ñu waroon wax yëpp dëgg dëgg wax ngeen ko du lu rafet daal xanaa kay di wax rek képp koo xam ne da ngay def loo xam ne kolewul ak suñu mœurs kolewul ak suñu société yal na la ci yàlla génne ba xale yu ndaw ji mën ci bañ a koy dal. alors le gis-gis du euh, du directeur des transports et sans objet puisqu'entre-temps information bi évolué na euh, permis yi finalement yóbbu nañ ko ba le 31 décembre dafa amoon gis-gis boo xam ni c'est loolu la concerné woon dans trois jours permis yi expiré donc Pierre Da Silva loolu liggéey bu ñu la wàññil la di gërëm. ñi ah, ñu dama bëggoon rek yokk benn maa ngi doon tàggoo. damay féddali dara. Mhm. Charles Faye rek laa bëgg. Hmm. waaw man dama bëgg gaayen bi. Hmm. waaw kii. Hmm. kii kii. kii c'est un grand monsieur. loolu dama ko dama ko kii kii dama ko bëgg saw biir xol. un grand un grand un mardi. fajar ñu ngi ndindi. incha allah Euh, euh, màggalu joxe nañ kii bi màggalu màggalu màggalu ah sëñ Abdou Karim ak màggal bi tamit dafa dafa yemook màggal bi non ah. mais moom daf ñu daf ñu daf ñu daf ñu invité spécialement waaw mais dafa yemook màggal bi euh, su ma juumul malal waaw ah voilà mi ngi noonu loolu la yàlla dogal kon mardi incha allah ziyaara ji sëñ Abdou Karim Mbacke ca Ndindi incha allah ñu leen di ziar ñoom ñëpp ni ñu leen di ziaree yéen ñi doon seetaan it jàkkaarloo bi di gërëm euh, invité bi euh, Amadou Camara moom mooy directeur général Miferso niki ki fi njëkk a jàllit euh, Jibi Ndiaye ñëwoon waxtaan ci transport yi jërë ngeen jëf